dañ jàpp ni réew mee ñàkk e communauté mouride moo ñàkk waaye islam moo ñàkk ndax moom déjà e boo gisoon tànk yi mu taxawoon mooy fexe ba ñëpp ànd ñëpp bëggante liggéey gis nga xool benn e video bi mu doon teg rek ci comportement ak melokaan bi am Baye Fall war a am maanaam Baye boo gis da ko war a naw naw ko ci liggéey ci cet naw ko ci jaamu yàlla. man maa ñàkk ñun ñi mu yar ñi ñoo ñàkk. xamuñu kenn sërif Ndorong Fall Tilala la ñu xam ñun moo ñu dugal ci diine ku mu xam may na la nga sëy waaye doom ju ñu am tii nañ ko man damaay jëm ji nga xam ne ci jar jarabaati Serigne Saliou ture su ma yëree saafara di ko di ci li sërif Abdourahmane Fall Tilala di laal la may laalal. doxalinu rassembleur doxalinu maanaam bëgg mbokk xëcc famille jokk mbokk ak aussi tarixa yëpp la boole donte dañ ko ràññee ci benn tarixa waaye tarixa boo mën a lim fii ci Sénégal ba ci extérieur foo ko ci woo ma nga fa. loo loo am am am ah, alalam du ko fekke lépp lu mu am ak lu mu yëg ci wàllu alxuraan ci wàllu tarixa ci wàllu diine da ciy wax dox ci te du ci feeñ. suma eboon yeboon ne ñun moom moo ñu dugal ci tarixa moo ñu dugal ci diine sama nijaay bu bokk sama yaay ndey ak baay muy Serigne Saliou ture moo njëkk a jébbalu ci moom ànd ak moom dem Côte mu yar ko ba ni mu génnee àddina mu jul ak njabootum uuf leen. Chérif Abdourahmane Fall Tilala keur ki mu nek ci Nord amul doomam bu fa dekk ay doomu jirim rek ño fa nek ño xamni ne moo sen bay, bañu genn adna mu tourna yor len ci biir keur gi takal len jabar tek len fa ubbi ay atelier tek len fa ñun akhla Tilala dañu ñak man kuma ma xam Chérif Abdourahmane Fall Tilala nga ma xamé suma amé nak bo ci gën rassembleur la rassembleur le ba par aussi dafa bëgg dafa am dignité bëgg man mën fédéré ba par aussi képp ko xamni suñu borom fal na la fi nga nek njitu rew dafay ànd ak yow parce que dafay seet li nga xam ne moom mooy dogalu borom bi te suñu borom mooy fale mooy folli ku mu fal jël ci xaybaam def la moo tax day ànd ak yow donc moo tax moom mënoo situé fenn. Chérif Abdourahmane Fall Tilala bàyyi na fa ay message yoo xam ne nee na képp ku yoon bokk ci yoonu Mouride yaakaaroo kenn ku dul Cheikh Rafal boo doo tux boo dee tux bokkoo ci moom boo dee naan sàngara bokkoo ci moom boo dee mooy yàlla bokkoo ci moom defar na fi nag ay ndaw bari na ñoo xam ne. macha allah ñu ngi woon ci lu neexul yàlla tey kenn ku ci nekk tey yaa ngi taraw alxuraan yaa ngi làqoo sa soxna yaa ngi làqoo sa borom te di jaamu yàlla surtout da man farati laa la bàyyi na maa ngi ñaan ci doole Serigne Saliou mi mu yaakaar Serigne Saliou rek la bëgg ci xolam Cheikh Abdourahmane Fall Tilala Serigne Saliou Cheikh Rafal la bëgg yàlla na ko teewloo